mu mel na kon nag boo xamul lépp boo lépp lépp bul gaaw a weddi waaw boo xamul lépp bul gaaw a weddi te comme nag kenn du xam lépp coono njàng coono jëf coono gëstu moo fi des coono njàng coono jëf coono gëstu moo fi des ndax xakim ba dafa wax ni arif ma afaal wala arif ma araft tak-tak la xakim ba dafa wax ni li may def xam naa ko wante li ma xam xamaguma ko waaw ku ne xam nga li ngay def waaye li nga xam xamaguloo ko moo tax doo bàyyi moo tax doo bàyyi dafa mel ni ñépp xaw nañ ci daje ci biir jamono nag boo demee réewu tubaab yi boo demee réew arab yi boo demee ci réew réewu nit ñu ñuul ñi daje nañ ci nit wax kese lu defar àdduna ñépp daje nañ ci wax kese kese kese lu defar àdduna de mukk xam lépp jëf jëf lépp mooy xaw a defar àdduna waaw fekk nag nit ku am kàttan moo fi ne ak nit ku doyadi nit ku doyadi bu jaaxle bu tiitee lu muy wuti euh, euh, yamba yamba euh, tux ko pour fanweeri minute mu gëlëm bañ a xam li ko yitteelati waaye bu fanweeri minute ya paase rek la ko yittee loon tiital ko jonkanu ko mu nar ko tuuxaat nag kañ la jëm kañ la jëm yonent bi bu masaan jaaxle yitte taxawu ko bu jullee ñaari rakk rek xam fu mu jëm waaw boo xam moo tax ki amul kattan bu jaaxle ci poson la jëm ki am kattan bu jaaxle ci leer la jëm waaw noonu rek la demee wa qurratu ayni fi salaat waaw wa qurratu ayni fi salaat am na ñoo xam ne bu ñu jàqee rek mara day taali tox leen rey léegi te du tax mu sotti moo tax maa ngi koy wax benn mbokk ndax dañuy dañuy faral di ñaawal sëriñ si ni seen xam-xam dafa dellu ci li ñoo tudde obscurantisme or obscurantisme ci ñëpp la dellu ci ñëpp la dellu lu tax nitu science jàng am diplôme yépp jàng ba noppi dugg ci laboratoire te lu mu fa génne muy drogue bu ko nit naa ne teqali ko sa bopp loolu koy obscurantisme dëgg ci wàllu science kon nag bala ngaa xas kële fajal sa wàll ba noppi waaw bala ngaa xas kële fajal sa wàll ba noppi waaw dama am benn téere bu tuuti di ko jàng boroom di wax bu sañoon euh, li ñoo tuddee sàngara ñépp watt ko te kooka dafa faj médecin la xam na lu ma wàññi euh, ba di jàng téere ba ci kanamu koo xam ni gorom la ba ni ko kii de e, téereem bi lu yéeme la li mu ciy tere yi jaroon na ñépp xam ndax daf ko yomb daf ko yomb pour mu def lu ko neex waaw ndax ñun ñu koy def ñoo nu ko yindil kon nag su tëbee tam ni baaxul jar na déglu mu mel na kon bala nga xas keneen ca la mu ne xel yow ba sa wàll leer ba noppi moo gën moo gën moo tax Sëriñ Si daan na wax ni doom seen maam nee na eh, waa kër gi jàng xuloo du seen wàll jàng tontu rek mooy seen wàll waaw ku la wax benn rek wax ko fukk loolu moo jàddu de ku la wax benn wax ko fukk moo jàddu de waaye bul tëb tëb wax jàmbur nag noppil rek noppil rek waaye ku la wax benn wax ko fukk moo ko wax de lu nit ñi tay tayi leen ko moo ko wax de fëlsafaam piir moo tax ndeysaan boo amul barke amuloo doole lu ne ñu jëli yenn la wallaay ndeysaan boo amul barke amuloo doole lu ñu jël rekk yenn la waaw te it doole dëgg mi ngi ci dëgg doole dëgg mi ngi ci dëgg moo tax yàlla wax ni bu ma tudd ko am fit te du sama nit yàlla nee na bu ma tudd ko am fit te du sama nit bu ma tudd ko am fit de te du sama nit ndax ku dul nitu yàlla bala ngaa am fit am fetal ndax ku dul nitu yàlla bala nga am fit am fetal fetal nag du njàmbaar fetal du njàmbaar xam nga luy njàmbaar jaasi góor a góor ku ne di xoolante tappuloo defante ko ba mu sax ci mbedd mi waaye fetal tëf du njàmbaar waaw pexe la bokkul ci njàmbaar waaw njàmbaar pire ci mbedd mi lay génne ala inna awliya allah laa xafun alayhim laa xafun alayhim ñaari wala hum yaxzanuun ñaari yàlla ne ñi ma méngoo piir nee na bokkul ci seen tabia ñuy ragal te bokkul ci lëf di leen lor ndax men man mi leen sama waaw muy ñaari yoon ala inna awliya allahi la xawfun alayhim wala hum yaxzanuun man aadani waliyan faqad aadantuhu bilxarb yonent bee ko wax nee na yàllaa ko yee guddi ni ko ñi ma amul lu dul ñoom ci kaw suuf ne ku leen lor bu ñu gaawantu nañu ko seetaan rek waaw nee nañu ko seetaan rek dana ko topp bu ca sët waaw waaw Eh, sama dama benn rakk dafay def léeg-léeg mu génneel ma baatu wolof ni ma seet ko muy Alaaji Moustapha Niang bi bu progrès islamique léeg-léeg mu génneel ma baatu wolof rek ni ma seet ko bu ko defee ma fanaan ba bërse di ko seet rek waaw te baatu wolof lay doon kat euh, dañu daje mu ni ma seetal li wolof di wax bokk bokk li ci waaw waaw bokk li ceefaatim waaw mu ne ma bari nag ku ko wax xamuloo ko seet ko nag seet ko bokk lu ci Fatim ko wut ci alquran ba gis ko waaw ndax itam buur piir buur piir dafay am noblesse buur piir noobal lay doon waaw buur piir mook wëli yu benn lañ waaw seen xol ak seen jikkoog seen jëfandikukaay bu ci nekk doo ko xàmme buur piir ak wëli yu piir ñoo bokk jëfandiku waaw bokk li fee ceefaat yi bu buur bu baax ko sabab xaritam dafa tudd ceefaat fas wi tudd ceefaat yi jaam bi tudd jéefaate xarit bi nag ni ko mënuloo xarit ndax boo nee cee fatim fas yu wuyu jaam bi wuyu ma wuyu mënuloo xarit mu yëkkati fas waak jaam ba may ko mu jeex takk ñu ni bokk li cee moom rek a tey léegi ñetti baat dootu fi wuyu may na ko fas wa may ko jàmb léegi bu ñu nee cee fàtti moom rek kay wuy waaw waaw ba di ko wut ci alquran nag ba gis ko ci ñetti barab ma gis ko ci albuqaatul mubaraka gis ko ci alwaadil muqaddas gis ko ci shajara mubaraka zaytuna la sharqiya wala garbiya ah. yàlla bind yëpp wante bum ci féetewoo rekk wutal ko nu mu mel xur yi bare na waaye lu tax mu ni alwaadil muqaddas Muusa tax waaw garab yi bare na waaye lu tax mu ni shajara mubaraka sayyidatuna Maryam moo tax ah safara yi bare na waaye lu tax mu ni annaarul muqaddasa yonent yàlla Muusa tax ba tax na yàlla lu mu féetale boppam dana ko tudd ba noppi wane ca ni nag boobu du yëpp waaw boobu du yëpp lu mu féete woo rek nga xam ko yi bokkul de boo gisee nit di dem ba ñu di ko ëppale nit loolu koy sabab lahu himamun la muntahan li kibaariha wa himmatuhu suxra ajallu min addaari cheikh a ko tudd Maodo jël ko waaw cheikh nee na ki ñu ni moo moom jamono nee na benn yitteem ci yi mu gën a tuutile dafa not jamono bokk na ci not jamono li ngay foye sa kër teewaa mbedd mi nelaw li ngay foye sa kër buur bu ne yónnee bëgg a xam loo reere walla loo añe ak gerte caaf gi nga yéey na mu demee ak loo wax ak diw ku fa dugg ak ku fa génn te yëguloo ca la not jamono yëpp waaw lahu himamun la muntahan li kibaar kibaariha boo tukkee ñu topp la boo toogee ñu topp la boo waxee ñu topp la boo noppee ñu topp la cheikh a ko wax a ko wax ci jawahirul maani cheikh alxaaj malik jël ko féetali ko boppam moo ko moom lahu himamun la muntahan li kibaariha wa himmatuhu suxra ajallu min addaari waaw koo xam ni boo tisoolee ñëpp fàttali ndax kenn ku ne bëgg na xam tisoo li lu ko waral ah wa himmatuhu suxra ajallu min addahri te ngay nit ni nit ñi lu waral tarakna albihaara zaxirati waraana tarakna albihaara zaxirati waraana fa min ayna yadri nnaasu ayna tawajjah waaw moom la Cheikh El Hadj Malick wax bi ko góor gi sàmm waxee ni ko dama doon waxtaan ak commandant cercle ni ko nii ngeen toppee Maodo rekk bu jàppee ngeen xam bu jullee ngeen xam bu sóonoo ngeen xam yebal fa ay nit mu jaral leen jël wird te jëluñu wird di seet dàll wu mu sol ak maxane nettali ko ko ni ko maa ngi ciy waxtaan ak commandant cercle ba àggal Maodo ni ko tarakna al bihaara zaaxirati waraana fa min ayna yadri naasu ayna tawajjahu ah mu ni ko géej yi ma jéggi bu ne di fuur man Maodo géej yi ma jéggi bu ne di fuur ma jéggi ko bu ba muy juróom ñaari géej naka la ñuy xameete fa ma nekk ah naka la ñuy xameete fa ma nekk tarak na bihaara zafirati wa rahma fa min ayna yadri nnaasu ay na tawajjala ku mënul fee ñemewul dox xamul géej yow nga jikki juróom-ñaari géej moom mu taxaw ci diggu mbedd ni ni dana xam fa ah. du sotti du sotti du sotti waaw ah. moo tax euh, maxtaar maxtaaru deymaane yi maxtaar wullu ma xamdu baaba euh, wax na ko sëriñ Babacar si ni ko fama taqwa alayka nafsu yaa baalaka taqwa fa kayfa alayka taqwa wala yaqwa alayka hawan wa taqwa waaw mu ni mu ni Babacar Si li ma wóor te metti ma nag mooy ni nga làppe sa bakkan ba mënatula jóg sax te yaru ragal yàlla rekk nga ko cawe ba bakkan baa ngi tëdd làpp na ba faw dootul jóg ni ko bànneex nga làpp ko moom itam ba mi ngi tëdd mënatul dara nga fexe ba yafal ñaar rekk li ñoo tuddi njub ak ragal yàlla waaw rey bànneex rey bakkan yëfal njub ak ragal yàlla dañ ca yàgg dañ ca yàgg de waaw dañ ca yàgg moo tax yàlla bu séddoo rek mu feeñ waaw alwaadi al muqaddas annaaru al muqaddasa albuqaatu al lu ko waral garab garab rek la waaye mu ni bii nag maa ko féetewoo mu jeex takk mu nekk sajara mubaraka xur yépp xur la waaye mu ni xur wi maa ko féetewoo mu nekk alwaadil muqaddas safara yépp safara la waaye bu mu ni maa ko féetewoo mu nekk annaarul muqaddasa loo ci mën waaw loo ci mën moo tax yonent bi daan wax ni balaa sama xol sedd bi ñett ñépp jekk ci ñett ñépp jekk ci waaw balaa sama xol sedd safara ñépp seddoo balaa sama xol sedd ndox ñépp seddoo balaa sama xol sedd ngub ñépp seddoo safara énergie yépp dugg nañ ci nee na balaa xolam a sedd loo ñàkk-ñàkk barke taal courant sa kër am gaz booy togg ci sa kër te bàyyi togg mat yonent bi ko wax de waaw bu dee naar énergie yëpp dugg na wallaay ndeysaan bu dee ndox céréales yëpp dugg na moo mel noonu de bu dee ngub protéine yépp dugg na nit war na société ba mu ne liggéeyal ko ba bu soxlaa énergie du ca sonn nit société ba mu ne war na ko liggéeyal ba bu soxlaa li ñoo tuddee céréale dugub ba mboq yépp dugg war na ko am te sonn li ñoo tuddee protéine itam mu delloo ko ci ngub ngub raba ko lekk gàtt ko lekk nit na ko protéine yomb na ko céréale yomb na ko énergie yomb bu ko société am defagul rek liggéey waaw tax yonent bi àgg fi mu àgg kullu xisaabin kullu xisaabin aqaama albadru min xuqat fii ëpp na moo tax suuf du suuf rek ku nekk defe nga ni suuf suuf rek la dëkk ci déedéet ëpp na lool waaw ëpp na loolu suuf si station la boo xam ni doomu aadama bu xëyee bu xëyee suba ba jant so li muy xef xef xef li ci yàlla di ñax pour mu mën a xëy di xef suba ba xef parce que boo xeful gaana li muy daj suba ba ngoon pour benn jaamam mën a xëy di xef ba jant ku daje woon dajale woon téeméeri junniy siècle dépense États-Unis ak Russie du ko mën a fay du ko mën a fay kattan la bu amul fenn luy jabar waaw pour doomu bi mën a xëy ci suba di xef ba jant waxuma li ci des nag te daf koy natt daf koy natt dañu koy indil kayit ki mu seet ko laajte diw sàngam dëkk ca Nimjaat ca Ndakaaru ca néegam di doomu diw ak diw ca suba ak léegi li ñu ko sédd ci kattan pour mu mën a xef ci bëccëg bi ana kayit ga ana kayit ga ñu indi ko waxuma la nag noyyi bi waxuma la dox bi waxuma la lu nekk ba mu xam ni lii yow kenn la ko sédd te dundal na àdduna te dundal na àdduna xajul ci àdduna li ngay dunde ci bëccëg bi bu ko wàcc woon ci kaw suuf suuf si xar te kenn ku nekk ma nga la ko defal ba ñu ni tey nit ñi mat nañu juróomi milliards ci doomu aadama et pourtant et kenn gisagu ko mu tawat kenn gisagu ko mu tawat waaw moo tax ñu ni suuf si station la boo xam ne yàlla rek moo bëgg woon boppam boppam moo bëgg woon boppam boppam waaw mu jeex tàkk moo bëgg woon boppam rek boppam bëgg-bëggam la bëgg-bëggam nag cheikh sama turandoo nee na beneen lay teguwul ci kaw beneen lay teguwul ci kaw yàlla lu tax nga def nangam sama bëgg-bëgg yépp foofu la yàlla lu tax nga def nangam sama bëgg-bëgg la waaw cheikh lay teguwul ci kaw waaw sama bëgg-bëgg la ndax suuf si pour loolu rekk la kenn ku ne sa benn noyyi réeru ko wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid waaw yàlla nee na sa buumu xol bi li mu laa jege yépp maa la ko gën a jege eh, eh, góor ga laaj ko sëriñ Babacar Si ni ko dégguma ko de mu ni ko buumu xol dafa jege xol te xolay nit yàlla ni moo la gën a jege ci buumu xol mu ni ko dégguma ko de mu ni ko gis nga ilimaan ja ca jàkk ja ja ca mimbar bi di julli sujjóot te fekk gas nga denc fa sa ñaari téeméer mu di ci sujjóot ca kaw yaa ko gën a jege ñaari téeméer parce que moom xamul ca dara mais yow ñu ko fa alxuraan rek la waaw ara kulla fi l woykat ba wax na ko ku ko waxati ara kulla fi l ardi dafa mel na yii nit mel ngeen ni man yéen a ngi bëgg a fëttale de <laughs> ndax lu ma leen ni ku ko wax rek ngeen fàttali te kooku fëttale pire la sunu way jur bu baax bii alaaji ji Ndiaye maa bay nee na ma nañuy nafar de nañuy nafar de wallaay ca raw du sëriñ Babacar la ma ko wax mi ngi ànd ak alaaji Abdou mii guddi gamal mi ngi ñëw maa ngi ko xool yërëm ko ndax taalibe gi taalibe gi ma nga sol rek benn tur ci dara bu woyof bokk dal doo xam sax ni kii ci fóore yu mag yi la bokk wallaay ndeysaan nekk taalibe rek waaye mu dey ma li ma waxal xale yi ñuy nafar de dañuy nafar de dañuy nafar de nafar piir farata wallaay léeg-léeg rek bayt dootuma xam ku ko wax nee na ara kulla ma fi l ardi ara kulla ma fi l ardi lillahi ayatan biha sukkaanu lil malai l waaw dafa mel ni boo sàgganewul li ci suuf si ca asamaan nga jëm mu gàtte noonu boo sàgganewul li ci suuf si ca asamaan nga jëm bu demul asamaan rek da sàggane li ci suuf si moo tax kilifa yi kenn mënu leen fay kilifa yi kenn mënu leen fay dale ko ci yonent euh, daan na def euh, bu ñëwee fekk sayyidatuna Fatima di nelaw doom bi doom bi waaw daf ko bëggoon dafa bëggoon sayyidatuna Fatima ba di ko fóon ci gémmiñ ndax bëgg plaisir bu yàllaa bu yàllaa daf ko daan am nit ku yiw la woon li mu mujj ñaan ci àdduna jóge ci wuy ji boromam boobu mu ngi tëdd ci ay minitam du mujj eh, li mu jëkk mujj def mu sedd xolam mooy sayyidatuna Fatima dafa dugg si mu bëgg jóg kattanam bañ waaw mu ni ko bul jóg maa ngi ñëw fekk ko fi mu tëdd mu ni ko am nga socc mu ni ko waaw mu ni ko yëy ko saxal ma ko boobu bànneexu jabar la mujj am ci kaw suuf Sayyidatuna Fatima seexal ko socc bi mu mel na yàlla jox na ko lépp lu mu dëkkoon ndax xam yiwte njaboot ndax xam yiwte njaboot waaye bu masaan fekk Sayyidatuna Fatima muy nelaw mu ne yee ko mu mu naafi la du doom bu góor doom bu jigéen la du doom bu góor doom bu jigéen la mu ni yee leen ko mu naafile ñu ni ko lu tax mu ni ruuxam jaamu yàlla rek lay dunde moo tax borom kër bu xamul njabootam amul cër kenn ku ne xamal lu ko yàlla defal bu fekkee sayidatuna Aïcha di nelaw mu ni yee bu leen ko yee ñu ne ko lu tax mu ne xelam xam-xam lay dunde te ku sa xel di dunde xam-xam da ngay soxla noppalu noppalu bu kenn yee kenn du ko yee pour mu naafila mukk nga xam ni ku nit jigéen dara waru ko xamuloo lu xew xamuloo lu xew yonent bi joxe na ci rek benn suura bàyyi ko fi doy na sëkk jigéen ji ruuxam di dunde jaamu yàlla ku jàmmul yàlla rek tax jigéen ji xelam di dunde xam-xam rek bu jàngul rek tax te yi ñaar rek fi moo tax foo problème yi bari de moo tax jigéen ñaa ngee soow rek maa ngi ca gis ndeysaan ñu ma dajal ca Algérie maa ngi koy wax ñoom ñu ngay xaw am métti euh,